kii yi asalaamualeykum noo ngi leen di nuyu di leen ziar fii ñu leen di nuyoo nag barab la bopp lu mat a fàttaliku la xaw ma dañuy wax fii fan la xaw ma dañuy wax kii kan la barab la bopp waxtu wu nekk yéen a ngi fii jaar ñu bari jàpp ne lu ne ngi ci biir ñépp di ko daw tey nag ñu fas yéene ànd ak yéen dugg ci biir yéeg ci kaw. wàcc ci souterrain bi war leen ne fii kat liggéey ak konu Serigne Touba bu mag moo fi liggéey liggéey bu mag boo xam ne nii ba dinay tukki kenn du ko fàtte dal leen ak jàmm fii ci palais Ndiouga kebe ci jannatul maxwa est-ce que léegi fu mu nekkee. waaw. waaw. nii maa ngi nii. yaa ngi nii waaw. xel bi waaw sànq ñoo ci rez-de-chaussée bi mais fii moom souterrain bi su sol mbokk gis nga ñoo ko gisandoo muy liggéey bu mucc ayib ca jamono joo xam ne kat ah yaakaaroon naa ne xalaat bi rek lu jafe woon la waaye jëf ci kan moo def lii mooy ki nga xam ne saa bu ñu tuddee barab yi moo xam tali bi wala corniche bi wala pale bi toftal ci tulam mu Ndiouga kebe yàlla nañu ko yàlla fayal Ndiouga Kébé moomu nag lay laaj Serigne Fallou Galass Sylla mu ñëw wax ñu as lëf ci njuga ak ci barab bi sëriñ fallu bismillah. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, Cheikh maa ngi lay nuyu euh, di nuyu euh, téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun dañu seetaan yëpp di tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Montaxa di ko ñaanal yàlla mu yàggal ko fi lool dolli wéram waaye jaare sëriñ Ousmane Kebe mi nga xam ne tey jii mooy jëmmi alaaj Ndiouga Kebe di woy juru njaboot gi di jaare Cheikh Mahamadul Bachir Kebe ak mbooleem njabootu alaaj Ndiouga Kebe gépp di jaarale nuyoo boobu nag ci sama jigéen di soxna moomi kebe eh, seex ñu am mbégte taxaw fii ci barab bii nga xam ne eh, jamono ji fii alaaji njuga di def lii boobu fii ab àll la bu yaatu waaye balay boobu dañuy dikk ci kan mooy alaaji njuga Kébé ba noppi doomi alaaji mbaalo eh, Kébé doonoon koo xamante ni bii dundam sànku wut ndax bu ma juumut vers euh, quinze wala yu demee noonu la war a feeñ jamono jàpp génn àdduna it ci at juróom-ñaar fukki at ak ñaar liggéeyal fi sëñ Touba liggéey boo xam ne ba mu amee ba mu nekkee euh, borom alal ñu mën koo tuddee borom alal ginnaaw bu mu jaaree fi wàllu daara ak wàllu tumuranke wàllu tarbiyewu ci sëriñ tubaa way juram jeexoon takk ci sëriñ tubaa jeexoon ci Cheikh Mamadou Bachir. sun borom jamonoonteel njuga ak alaaj Cheikh Abdoul Ahad Mbacke jàmbaari lislaam jooju ñu nuroo lool ci jëfin nuroo ci xol alaaj njuga coow ci la amoon yéene taxaw ci ginnaaw Cheikh Abdoul Ahad lépp loo xamante ne bii Serigne Touba yayoo na ko mu defal ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci la amoon yéene ci barab bii dan yeneen barab am na yu baat waaye ci bii lañ taxaw eh, barab bii eh, jannatul mahwa la jannatul mahwa eh, ku ne xam ne ne boo ko tuddee xel dem ci Serigne Saliou yéene ji jëkk ci alaaji Njóoga lim njëkkoon a am yéene nga xam ne laata muy def barab yi mooy doomi sëñ Tuubaa yi wër jumaa ji kenn ku ne dana la woon da ngay wut sa quartier bopp ma tabaxal la fa ay logement ba mu àgg nga dem fa seen kër yëpp ñu jox ko sëñ Tuubaa muy bay muy muy muy muy bayal nga xam ne booba xelam mi ngi nekk ci yàkkali jumaa ji ak leneen ànd ko Cheikh Abdoul Ahad jamono jooju seen la Cheikh Abdoul Ahad tàmbali woon yokkub jumaa ji kenn natt bi ne alaaji Njóoga Kebe loolu def na ci lu yéeme ba ci lamp yim commandé woon bi sëñ Tuubaa di wax naan ijxalliyal xarira wa dibaaja fil xabri ya basitu wa siraaja yooyu mu doon ñaan ci ba ci xabroom bu tëddee Tuubaa yooyu alaaj njuga kebe ko andil sëñ Tuubaa ci Tuubaa muy lu yéemee yéeme loo xam ne doy na waar ci la amoon yéene nag defar barab bii ba mu àgg mu def ko muy kër sëriñ Tuubaa barab bii bi muy noppi yéene ju jëkk ci mooy defaloon sëñ Tuubaa aéroport ci Tuubaa jënd avion bu ne ci turu Cheikh Ahmed Bamba waaye bu barab bi noppee tasanteeg yokkub jumaa ji noppi fu réewum jullit mën ne ci àdduna bi mu invité la nga ñëw Touba gis kan mooy Cheikh Ahmed Bamba loolu moo doon yéenay alaaj njóge Kebe yéenam jooju nag seex dama yaakaar ne milliards yu toll nii ku ko defar te moom bàyyi woon na fi capital bi koy defar lépp xanaa yàlla mooy am koo xam ne fu sag dund yam mu yemale fa say jëf waaye damay ragal ne barab bu toll nii ku tuddati yoon wi xam ne alaaj njóge Kebe moo ko tëli tëli bi départ ci buntu kër buntu sëñ Touba ba ni muy agsi ci barab bi to tëli alaaji Njuga Kebe la tuddoon damay toujours di faral di wax ne nit ñi tëli jànnatul ma waa la ñuy wax waaye tur wi buñ ko ko ñaanee nañ ko ko delloo ndax ci sa biir interdiction dégg naa nga ne barab yu bari buñ ko tuddee dàkkantal ko ci aw turam lampu njuga ba ci biir jumaa ja lay doon tëli njuga ba ci fii lay jëm pale Ndiouga ba fii lay doon forage su Ndiouga ba fii lay doon loolu ay ay ay ay tegtal la tey lim am ci ay kër ci Touba amu ko ci benn dëkk loolu moo lay xamal ne Touba rek ko ñoroon loolu li mu ci jublu woon mooy lépp lu rafet mu indil ko sëñ tubaa ci dëkkam bii moom yéene wutoon defal fenn fot lu rafet lu dul sëñ Touba la koy defal moo taxoon mu am yéene def pale bii sëñ Cheikh palais bi daanaka noppi na gis nga bâtiment bu mel nii ba fii ñu toll amagul Sénégal amuñu benn plan du pale de la république du faneen benn plan bu am bu mel nii ci Sénégal amul ba noppi mu liggéey ko ci liggéey te boo xam ne liggéey bu garanté la te daanaka liggéey bi noppi na eh, li li ci des mooy àggale àggale moo ci des yal na yàlla dogal mu àgg ndax eh, kenn yéenewu ko aw yiwam dagg te lii yiw wu yaatu la seex yaakaar naa ne espace bu toll nii amul genn kër sëñ Tuubaa gu toll nii ci Tuubaa ci yaatuwaay bii a guddaay bi amul gu ko gën a placé itam ci départ fii dem ci jumaa ja liggéey bu toll nii ñu liggéey ko fa it àggale ko warut a doon dara kon xam naa ne dogalub yàlla rek lay xaar. waaye ñiy faral di wax naan pale ba ay bandee fa dëkk ay nangama fa dëkk loolu yaakaar na weddi ku ne tey maanaam doxoo sax ba gis fi bant maanaam foroo fi du mégob cigarette du butéelub sàngara du leen luy teg tegtale ne fii ay woyu dañu fi ne lu du tànki jinax nga fi def ak tànki kaña mu nekk plan bu mucc ayib boo xam ne li ni ñaan yàlla daal yàlla na yàlla wàcce dogalam ci mu àggale liggéey bii ci alaaji Ndiouga Kébé nga xamante ne bii eh, njaboot gi eh, wax dëgg yàlla macha allah li leen war ña nga ca eh, mu mel ne nag kon dogalub yàlla rek moo ci des waaye yaakaar naa ne daal xalaat yi war naa mën a maase daje siwaat fii ci pale bi ñu àggale ko muy sagub Touba di sagub Serigne Touba waaye du sagub yoon wépp see xamar jërëjëf sëriñ Fallou Gallas si la mbokk yi pale njugëkk bee ngi nii wax la dëgg ku nekk dëkkaloo nañ la fi ba ñëpp ragal ko looloo tax rek ñu yëkkati ay tànk ñëw yegg si fi waaye bi ñu fi yegsee it dañoo yéemu ci liggéey bi ndax niveau yi defe naa ne R plus la yéeg nañ ci kaw wàcc nañ ci suuf dem nañ ci souterrain bi gis ngeen ko nii mu lëndëm course ci heure bi waaye gis ngeen ascenseur yi nga xam ne bàyyi woon na ko xel parking loo xalaat rek ak aération bi Serigne Fallou Galassi la mu ngi koy wax sànq naan pale bi aération bi sax xëy na moo tax bâtiment bi résisté nii lii nag yaakaar naa ne ci découverte yu am solo la am na lu ñu fi seetlu it mooy fer bi fer bi. damay wax sëñ Fallou mu ne ma mais fer bu sew bi def siis la waaye kii de yaakaar naa ne sunu fer 14 sax wala yeneen yi lii moo gën a dëgër feer bi defe naa ne bu raar la dafa mel ne qualité bi gën ci qualité yi lañ jóge indi woon te fer bi ba léegi dara yàquwu ci gis naa fi lenn ci ay briques briques yi amul lenn lu ci xoosu ndax matière bi ñu ko liggéeyee dafa garaaw gouttière yi ma fi seetlu sax dafa mel ne argile lañ ko defaree ci anam bu am solo mbokk yi li daal yaakaar naa ne. murit yëpp dinañ am mbégte ànd ak ñun doxantu ci biir pale Ndiouga Kébé bii nga xam ne nii dañ koo ragalloo nit ñi te it nag dara dara newu fii lu dul liggéey bu mucc ayib bu jàmbaar jooju liggéeyal Serigne Touba moo tax dundal dëkk bi moo gën téeméer yoon di ko dundee moo tax Ndiouga Kébé fu ñu ko tuddee tudd yu mel nii mu ngi nii daal man xamatuma sax lan laay wax waaye jàpp naa ne jublu gi ci jublu ci wane ko day tax mbokk yëpp xalaat ci léegi nag mbokk yi lii lan lañ ciy def ba beneen yoon ci beneen barab ak ci beneen jaraay ñu sant bu baax sëriñ falu Galas Sylla ci caméra bi ci réalisation bi ci montage bi jërëjëf sëriñ Touba.